Youssouf Bodian ci kanam ndax euh, li ko waral mooy Sénégal mën naa qualifié tey ci Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 su gagné ca ca ca Soudan euh, dégg nañ anam yi gaynde yi yegsee foofa gaañoo fa jiitu waa Soudan yi nga xam ni ñoom bi ñu fi bawoo samdi démb la ñuy doog a euh, bi ñu fubalee samedi fii démb lañ fi doog a bawoo démb ci guddi la ñuy doog yegg seen seen dëkk Amara Traoré teel googu Sénégal teel fa dem njëkk leen fa avantage la forcément oui avantage bu mag a mag la di di rafetlu aussi aujourd'hui tey euh, maîtrise bi ñu maîtriser logistique bi donc parce que la lu am solo parce que logistique day day ànd ay points maanaam si maanaam si qualification yi euh, day day wane ne aussi Sénégal def na jéego yu rëy rëy ci waa ci anam boobu et puis je vois je vois que même suñu naataango yi nga xam ci Afrique yu actuellement euh, xam nga Sénégal moom lépp lu moom présentement ñoo ci ñoo ci njëkk xare mais après dañ ko dañ di def continuité bi. Mhm. donc man je vois que tey Guinée Burkina Mauritanie ñëpp tey Sénégal yu bëri na leen ci loolu parce que loolu du maanaam du du rëy mais lu lu euh, lu jaadu la c'est le minimum c'est le minimum. et mhm. maintenant il faut pas que pays africains def loolu yaakaar mais mais Amara laata ñuy dugg ci match beeg euh, taxawaay beeg forfait yi ñoom Sadio Mané mi dul bokk. Euh, Lay Diaw yow yàgg ngaa wax ni euh, CAF warta toppandoo UEFA ndax Europe jumtukaay mate na mën ngaa fubal tey fii suba ngoon nga fubal feneen jël sa avion waaye Afrique de taxu ko ni demee wajaase yi ci wàllu avion c'est pas évident Soudan mi nga xam ne mooy daal Sénégal ñu jiitu ko fa mandarga la ci ne. Euh, match yu taqaloo yooyu ci diggante ñaar ñetti fan euh, mën naa ñàkk. mais gis nga man dama ci am bu ma vivre boobu dem naa Lubumbashi ak gore ak gore de en Coupe d'Afrique ñu joué ba pare war ñibbi si euh, transité Cameroun amuñu vol bu ñu indi Dakar le match devait se jouer deux semaines après deux semaines nous sommes restés bloqués Euh, au Cameroun fa la ñu mujj di entraîner Malick Ndaw était chef de la délégation euh, équipe bu ñoom Gabriel Mombati boobu euh, bu lu mu Lumumbashi bi ñooñu jiitu Dakar match retour les Congolais de lu mu Lumumbashi ñu jiitu Dakar ndax problème mu correspondance parce que du du lu nga xamee ni yow da ngay décider sa bopp da ngay dépendre ci ci structure da nga ciy dépendre mais suñu qualification coupe du monde 2006 à Lomé mais looloo ñu ko perdre loo. Mmh, on a mmh, perdu mmh. à Lomé maa ngi koy fàttaliku parce que Guy Stéphane équipe bi aéroport 3 heures du matin lañ fi jógee. ci ku fi waroon jógee euh, ci ku fi waroon jógee. 19 heures la veille du départ. Guy Stéphane me dit Ablaye on va passer la nuit dans l'avion c'est inconfortable nos adversaires dorment déjà on aura un retard de quatre heures. on perd à Lomé trois 1 Qualification Coupe du Monde. Dès le voyage, on a perdu le match. ba tax na léeg-léeg tukki bi lu ci am importance la ci yoonu match yi xoolal Amara wax na ko tout à l'heure euh, ñun ñoo jiitu euh, euh, ñoo jiitu soudanais yi chez eux mais psychologiquement daf leen di ébranler lool. Youssouf Bodian waaw euh, peut-être euh, ginnaaw ma nuyoo Abdoulaye Diaw nuyoo Amara Traoré. Euh, coach déjà ci ñu dugg ci match bi ak forfait yi nga xamante ne annoncé nañ ko bu ci mujj Sadio Mané ginnaaw gi Idrissa Gana Gueye waaye tamit Moussa konaate est-ce que ci match bu mel nii ak li ñu gis ci adversaire bi amul tellement d'argument fii ci Ndakaaru opportunité la pour un sélectionneur pour mën a gis yeneen yeneen joueur gën leen may temps de jeu. waaw bi ñu gisee maanaam adversaire bi. bu ñu paree hmm. par euh, parcours adversaire bi éliminatoire bi donc je pense que mooy seen euh, ñetteelu pass bi ñuy perte bon li ñu wane Dakar aussi euh, war na ne que ni équipe ñi nga xam ni ñoo fi war nañ fa mën a def résultat résultat lay wax parce que maa suuf dër bi boo xam ni mën nañu mën na leen public mën na de suite hmm. mais donc bu ñu xeeb match boobu donc match match international benn du tuuti. Mm-hmm. donc euh, maintenant euh, c'est vrai que man li may ñaawlu ci ci ci ci mbir yi mooy euh, eh, eh, mooy la la cascade de blessure yi nga xam ne am nañ ko. effectivement. waaw blessure nag moom du tàggu. Mm-hmm. lu tax ma koy ñaawlu mooy parce que on est au mois de novembre. Mm-hmm. on va pratiquement on va on au mois de novembre. après match bi ñaari match mooy des pour éliminatoire ñaari jeex. après bu ñu fàttali mois de mai rek mois de mai mois de dañu dem ko Coupe d'Afrique. Mhm. am na base équipe bu taxaw et que à l' dañ ko saf lu rëy rëy saf si bon man même su fekkee d' accord ba si mooy. na nga jël coupe bi. bëri mhm. donc donc loolu heure bi ku war a jëli coupe heure bi c' est équipe bi nga war jëli war na mën a taxaw. bon Amara euh, dafa am tuuti problème réseau ah. mais li mu doon wax Laye Diaw mooy euh, euh, équipe bi amagul base bu claire instant bi kii di Aliou Cissé mi ngi liggéey ci la base d'une quarantaine de joueurs ñeent fukki joueurs yoo xam ni xëy na ñoom lay utiliser di rocceek génne c'est normal non man loolu mooy suñu richesse <laughs> loolu moo di suñu avantage Babacar te dafa ci am aussi tegtal am naa ki ñaar benn bi je commence par Matar Niang ñi nga xamee ni am na jamono moo di suñu meilleur attaquant. nee ngeen mooy su meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Matar Niang. Mm. Matar Niang dafa mel ne que bu dugal bi bu ko neexee léegi mu dugal ko. <laughs> te tiens très bien suñu CAN 68 xam nga a demul bëggul regroupement bëggul regroupement Matar euh, rigueur regroupement. ñu koy tëral di ko ak entraînement bokk ak nit ne loolu la Matar Moussa bañ et tiens-toi bien ce n'est pas seulement en équipe nationale même même ci club am Espoir de Dakar l'autre aile en fait du Jaraaf benn bis et son entraîneur qui me le dit Koué yaa ko yàlla yërëm Koué ma di bis Matar mus na ma fanaan seen kër parce que bu nekkee regroupement du nelaw mënul nelaw feneen fu dul seen kër Koué l'avait compris tout le tout comme le groupe des espoirs Dakar dañu accepté effectivement Matar Dem fa seen kër parce que xam nañu ko defu ko parce que dafa bëggul nekk groupe bi euh, daf ko def pour mieux préparer le match et il dit à son entraîneur soo ma mayee ma fanaani sama kër je gagne le match mm. et groupe bi d' accord entraîneur d' accord le lendemain il marque deux buts il gagne deux zéro mm. et ça c' était Matar Niang beneen bi El Hadj Diouf avion bi dañu taxaw ci yoonu Monrovia avion baa ngi ci piste bi ñëpp dugg nañu toog ñuy nekk El Hadj Diouf di ko nekk di ko nekk ba gis Stéphane jékki-jékki énervé daal di ne. génne ko ci groupe bi. waaw daal di ne équipage bi fermé le vol. moment bi ñuy teg avion bi ñu naan eh ma El Hadj Diouf a di daw di ñëw ñu ngi di daw gis Stéphane ñu dem sans lui à Monrovia on gagne 3-0. on refuse à Henri Camara un penalty, pas Boubarak. On, on, refuse à Henri Camara un but. On gagne 3-0, on annule le but de Henri qui était valable, pas Boubarak un penalty. Match bi bi muy doo libérien yi gën a am déception que ñun ci absence El Hadj parce que le stade a fait le plan c'était pour voir El Hadj Diouf. mooy tey ca Soudan rek waa Soudan ñu ngi doon xaar Sadio Mané mais duñ ko gis. voilà ñun on n'a pas essayé de faire le vide sur El Hadj Diouf parce que ñun suñu style mooy loolu on n'est pas dépendant te kii mu sa ko wax petit Saul le Guinéen au temps de la splendeur de la Guinée euh, petit Saul dafa ne xam ngeen lu tax jouer Sénégal jafe ñu ni que non mu ni tu ne sais pas quel joueur quel adversaire tu vas rencontrer. Mhm. mais ci bu bu ñu delsee ci match bi euh, Amara Traoré. taxawaay bi nu muy doon euh, Sadio Mané bu bu dañee bu bokkul koy koy indi. xam nga doyen laay doon wax léegi aujourd'hui euh, bu bëri bu ñu fàtte ni Ismaïla ngi fa bu ñu fàtte ni Diao Baldé Keita fa bu ñu fàtte ni comment ça mais ñëpp euh, euh, si si si. ci côté yi changement parce que boobu mhm. dee ci côté bi dañ koy dañ koy. utiliser dañ koy dugal. ñu fàttali même ku aussi mën na dépendre de foofu. maa si foofu aw ma fa aw ma inquiétude. Mhm. Mhm. aujourd'hui on a vraiment euh, trop de <laughs> comment ça s'appelle de richesse ne nuit pas ah. quand même. nañ que yaa am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy def boobu léegi aujourd'hui quand même boo xoolee yi Dessati, bon, Nini, même olympique. Mm -hmm. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, euh, petit à petit, le Sénégal est en train d'avoir, euh, comment s'appelle, une, euh, une équipe avec, euh, avec, euh, avec, une profondeur banc, la dépendance là, vraiment, si tu as et que donc euh, si ce match, si ce problème-là, si ce ci sa kii laa aspect laa man vraiment aw ma ci aw ma ci aw ma ci jàqare mhm. ba ba ci góor maanaam tey macha allah. Mhm. ci ci contexte match bi environnement bi gars yi doon déplorer un peu euh, pelouse synthétique bi nga xamante ni euh, quand même euh, nee nañu état am baaxul trop Amara Traoré wax nga ko sànq par rapport disposition yi Afrique war a jël pour que football tey ñu mën a jouer ci condition de jeu yoo xamante ne yu yu digne lee doon loolu chantier la boo xamante ne pour ñoom pour Sénégal aussi gis nañu stade Léopold Sédar Senghor mu mel. xam nga xam nga c' est bien c' est bien ñuy critiquer ñeneen ñi mais nañ nañ di critiquer suñu bopp d' abord. parce que xam nga amul lu jaadu dëkk bu mel ne Sénégal contre Côte d'Ivoire bu ñu frappé bi ñu suspendre euh, euh, stade Léopold Sédar Senghor. Mhm. amuñu stade bu ñu. 2013. Mhm. waaw mais mais ba léegi ba fi ñuy wax léegi loolu euh, anomalie boobu rectifié mais bon dégg bi ñu defee arène pare le président de la République monsieur Macky wax ni dañuy def benn stade foofu ci. omnisport cinquante mille places. voilà ça dañ koy rafetlu mais man dama bëgg ñu yokk ci benn bi dëkk bu mel ne Casamance dëkk euh, tey war nañu mën a am. Euh, euh, problème réseau bi. li nga wax ni am na solo ndax ñu si mel ni waa Côte d'Ivoire gëdd nañoo football Abidjan Bouaké la ñuy dem. allo. man na ñu ci ñu ci mel ni waa Côte d'Ivoire euh, ñoom yemuñu sax léegi Abidjan seen match yu mu jëpp Boaké lañ koy. football tey tey war nañu mën a tey bu ñu en match international ñu andi ko Ndar wala andi ko yóbbu Casamance wala yóbbu ko am am am richesse boobu et puis tey préparé même euh, pour ñu mën a qualifier pour ñu mën a euh, organiser Coupe d'Afrique parce que gën nañu ko organiser yooyu yëpp maanaam c'est politique boo xam ne infrastructure dañ ko war pour mën a gën a gën a poser parce que aujourd'hui bu ñu am ay bu boo xam ne mën nañ ci mën nañ ci sukkandiku pour l'instant mais même bu ñu ko mënee pas faire donc je pense que euh, maintenant euh, dañuy wax dafa am lu am solo parce que ku mel ne Sadio souvent les gens koy critiquer mais bu ñu fàttali ne bu ñu nee Afrique Afrique laay euh, jox la ko sens transport yi ci ci demul noonu da taxul. Mhm. Euh, ñu dem di fubali terrain synthétique alors que suñu yi. Euh, bu saison bi commencé ba léegi géruñ ci terrain synthétique hmm. donc yooyu ay jafe-jafe yoo xam ne moo tax CAF dafa war a harmoniser maanaam même au niveau si nga xam ne moom la jooju war a joué daal hmm. lan la CAF war a def ci sa gis-gis ku amul terrain bu baax doo recevoir ñu wutal la nga dem fubali feneen bon ça ça c'est c'est radical mais les accompagner CAF dafa war a accompagner hmm. équipe yi ba nga xam ni parce que les moyens yi saa ba nga xam ne équipe bu équipe yëpp xool leen accompagner ak ak FIFA par exemple maanaam ci agent ba équipe au moins en terrain maanaam euh, terrain synthétique comment ça s'appelle euh, terrain boo xam ne nii ñi moo tax ñu mën a war a ci mën a. Mm, mm, mm. lay jaw lay jaw dama bëggoon laaj laaj lay jaw ndax euh, ñu ngi bay bayal di di jéem a Euh, Sénégal ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk sport beeg euh, pelouse stade Léopold Sédar Senghor bi nga xam ni euh, daanaka gàcce la c'est un scandale avant match keroog bu samedi bi ñu ngi doon wax ni way dina baax nañ ko defar bi match bi démarré gis nañ ñëpp ni mu demee mais loolu jaaduwul lay jaw mais gis nga <laughs> gis nga ñu dëkk stade ba mhm. xamuñu ni baaxul. <laughs> yëgu yëguñu loolu ils sont surpris quand on leur parle de l'état piteux du gazon ils sont surpris parce que ñoom euh, euh, xam nga euh, am na benn waaye bu ne attention yéen a ngi jaawale gazon ak ñax de foofu ñax la de <laughs> du gazon ñax la mhm. alors ña fa nekk yëguñu ni du gazon ñax la parce que moom laa la wax ni la xam nga amateurisme weesuwul nga war décider professionnel te xamuloo li mu soxla xamuloo li mu so mais euh, je crois c'était sous quel entraîneur mhm. équipe bi nekk na fi en stage à Dakar ak di commencé stage bi joueur bi ñu ñëwee à l'entraînement dañuy i bi état joueur yi ñoo cotiser pour taaye lu gazon bi mhm. ñoo cotiser pour taaye lu gazon bi parce que nekkul ci état bu propice à un jeu propre à une bonne circulation moom laa la wax ni la ña fa nekk xamuñu ni euh, euh, état bi baaxul pour pour euh, pour xale yi mën ci jouer match bi war euh, d'ailleurs am na ñu booy ñëw Sénégal bii feesi léeg-léeg da ngay indaale ñeenti peeru daal pour xam ban moo baax ci ci bii terrain parce que le terrain change constamment tey dangay ngay ñëw mu ñàkk ndox mais barki démb bi ñuy joué Soudan ci tàngaay bi xam nga 19 heures trente choix bi baax na mais tu ne sais pas qu'en période de chaleur à 19 heures 30 bala ngay wàcc ci gazon bi. Mm. nit war nga ko arrosé pour précipiter fraîcheur fii joueurs yi di soxla. Hmm. parce que gazon jant bi dana soobu tàng ci kaw. Hmm. mais loolu kuy football bi yéeg ci gazon. di souffrir ci terrain. mooy xam li joueur di soxla. gis nga ca kanam tuuti ca kanam tuuti pour diriger une structure comme celle-là da ngay nekk un compétiteur de fraîche date. Hmm. Joseph Antoine Bell wax na ko. nit ñi di ko ŋàññ mais il a parfaitement raison. il faudrait que ñiy teg équipe bi ci terrain bi. mës fa dugg di fa jóge pour xam la fa nekk. kon euh, peut-être Amara Amara Traoré euh, par rapport. Euh, dellu si waaw waaw am na lu Amara wax tout à lu mhm. important Fadine bi moo ko làq. Mm. mais imagine naa moo bi xam nga lu Amara wax te feeñul ci ndax Fadine bi ko yàq. Mhm. Amara nee na kaaf war na rigoureux ci di veiller ci heure yi ñuy programmer match bi. Mm. bi muy wax heure bi dafa nëbbu ci Fadine bi bi bi bi duggoon ci ligne bi. Mm. heure match bi. Mhm. à quelle heure jouer en Afrique war kenn amul droit jouer heure bu la neex. voilà Abdoulaye jaw kon Abara peut-être euh, ñëwaat rek ci ci match bi tey ak forfait yi am euh, ban euh, peut-être onze du Sénégal nga yaakaar ni yow moom lañuy ñu war a xaar tey bu 17h30 jotee. waaw xam changement yi équipe qui hmm. football donc ils ont gagné 3 avec beaucoup de d'occasions ratées. Hmm. avec li ñu ci rafetlu mooy équipe bi football na dugg na bi et et concédé wul occasion ça aussi nañ ko rafetlu. Mhm. parce que même euh, souvent bugguma ñuy ñuy tuuti adversaire adversaire bi parce que ngeen ma matt matt jaan. Mhm. jaan bu matt mag bu la mattee day day day saf. Mhm. bu ndaw bu la mattee day saf. donc euh, voilà donc Soudan ñu fi équipe mag lañu. mais euh, match bi vraiment damay féliciter Aliou ak son équipe parce que euh, quand même ils ont pris l' adversaire di leen adversaire boobu gagné na joué na comment joué na ñu gagné am na am. bi. Hmm, hmm. euh, Sadio Mané forfait mais bu ñu fàttalee Ismaïla Sarr euh, keroog démarré wul. Hmm, euh, Ismaïla Sarr démarré wul. footballul sax aussi kii Mbodj. Ndoye Ndoye. Ndoye mën na remplacer valablement Sadio. Cheikh Ndoye Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye mën na vraiment Sadio Mané donc vraiment tey moom parce que am nañu polyvalence bi am nañu richesse bi. donc moi en tant qu'entraîneur. Euh, tey loolu bu amoon ma c' est voilà les choix à faire. Mhm. surtout que surtout que Cheikh euh, andi loo xam ni ma amoon nañu amuñu woon ci match mhm. parce que match yi passé bu ñu fàtte yaay am na ay taatu yu tey am. waaw te ce défi là Cheikh Ndoye peut répondre effectivement donc parce que des équipe euh, match bu amee mel noonu équipe il faut mu am kenn koo xam ne day répondre pour mën a calmer l' mhm. donc sur ce là je pense que Cheikh Ndoye est vraiment prêt

Euh, mais Mansour mon métier c'est. entraîneur dans l'âme ah. ngi ci terrain bi di entre a di jàppale sama entraîneur yi. mais mi ngi euh, euh, Amara Traoré ñu leen di waaw waaw Laye li ma la dolli mooy man am naa équipe bi bii. Mhm. te onze bi war am naa ko biig c'est équipe.